bañ a demee nii mais man boo leen ko oyofalee man oyofal ma ko man je veux que vraiment ren Issakha Diop sama xarit la sama collègue la sama raq la xelam yëpp mooy temps yëpp amul coupe zone bu ñëw Pikine Nord la koy jël daaw gelawaar la beneen bi yeew la woon beneen bi xaw ma kan naataanga benn yoon la ko fi jël siraat jël na ko fi man moom ñu bokk siraat kenn xamul kan la léegi nag bii daa bëgg naataanga jël ak Pastef du ma ko nangu moo bëgg a sot ci li ma mën c'est maire kese la Pikines am nañ maire am nañ député te tableau bi boo gisee man leen nañ ko génne jour boobu dama kontaanoon ci Goulin Sène ndax dama woote set setal école 1 mbënd bi jàpp ko ndox mi taw école di tijji ñu war ko bale ma ne ASC yi gannaaw football war nañ am njëriñ ci ñëw ay activité yi nga xamante ne day dem ci askan bi ñu jàpp ci set setal jour boobu la booy sol ay maillot yi AS Pikine nii AS euh, Guney Seng solal ma bii àndandoo ak man bale école bi Bertrand jiite ko supporters yi sama xol sedd quoi ci laa def benn publication nag te man ASC bu mag baa ngi ren zeng la xoolal wax jooju Moïse ci ubbiti école laa ko waxoon début nawetaan yàlla di def ba en cadet et en senior équipe boobu ma tudd yàlla def ñoom ñaar ñu dem final leen li ci des nag yéen la ñu dem jël coupe indil ko commune Pikine Nord seeni moroom ngeen di football bu leen gëm ay xaalis bu leen gëm xon gëm leen bëgg indi coupe bi ne serait-ce pour Pikine Pikine Nord ne serait-ce que Mathurin Sagna moo fi gëj a indi coupe te nekkatu fi ngeen ñëwaat ren Zeng dafa war a yëngatuwaat keroog supporters yi ñëw nañ ànd ak Lamine Koor ma jox leen ñu jënd ay ay peinture ay décoration pour décorer quartier Zeng yi yëpp gis ngeen réduce bi ñu commencé mel alors pour que la finale commencé nekk en fait cadets yi aussi zone dama leen wax cadets Zeng yàlla dafa def ren ma adopté leen ne leen tey maay seen président d'honneur wax naa ko ramal seen présidente nee naa ko man bàyyi maa cadets yi recevoir naa cadets yi ci match yi ba ñu egg final final bi aussi neewoon naa leen dinaa leen jox lii de regroupement ah regle réglé ajjuma foofu ngeen di regroupé fa ngeen di fanaan reer yi tey laa leen koy jox ba leen demee ngeen xool ku leen neex ngeen jox ko bu toggale ndékki yi ci ëllëg sa tey laa leen koy jox fii ñu toog nii soo leen demee ngeen xool ku leen neex mu toggalee ndékki añ yi tey laa leen koy jox transport bi tey laa leen koy jox maye yu ma leen diggoon tey laa leen koy jox njaago njaago mooy seen góol bi ah moom jëndaloo naa ko godaas gan moo des tey laa lay jox nga jënd gan Tidiane Tidiane sama doom la sama kër lay nekk ba quatre heures du matin ñaanoon na ma daal tey laa la waxoon boo ñëw ma joxal nga jënd daal ana beneen góol bi waaw ah, yow tamit naa la jox tey nga jënd gaaw alors su su ma su ma amoon lépp loolu yéen ñëpp laay jëndal ay godaas ak yooyu mais dama ne señor bi tamit waruma leen seetaan señor bi ci lañ bokk sama équipe lañ ñiin kade ngeen ñoom señor lañ su ma jàppalee kade kese bàyyi señor bi aussi du neex alors moo tax ma woo señor bi tey pour aussi jël xaalis jox leen pour ñu jàpp ñoom it seen i seen seeni dépense suñuy préparé final ñoom nag dafa am surprise ñoom digguma leen woon dara mais dama leen doon bette ay blouson mooy bleu blanc yi ngeen jël mënoon naa jël blouson yi ak ak may yëpp jox kade yi mais waaw day neex mais bu boobaa senior yi dañ may mere te cat da ciy dugg parce que nag équipe bi benn la mais comme yéen maa ngi leen di jëlal en charge le regroupement les préparatifs jëndal leen maillot culotte bas ñenn ñi gants dàll. mais nag sañoor bi bàyyi leen ma jëndal leen blouson yu ñu mën a teg ci seen i may nga xamante ne peut-être keneen moo leen ko jëndal bu ko defee dama nekkoon parrain mais seen président Matar Gueye sama rakk la sama conseil la affaire yi dëgër ma ne ko demal lijjanti benn un million nga joxal ma zone après naa koy fay mais nag mujj ko lijjanti nag ba wax waa zone gars yi yaakaar alors man leen nag su final bi jege see dinaa leen jox un million boobu final bi jege si Maurice wooma Demba Diop wooma Rasoul wooma ma ne leen tey comme démb laa ko bëggoon def sax mais sama méttitu bëñ bi moo ma jàpp ma ne buuba wool nga xam ñu bañ bañ a ñëw mercredi ñu def ko vend euh, jeudi comme ça vous tey suba pour faire vos dépenses par rapport ak euh, ak euh, final bi donc préparé ma benn enveloppe sama xaalis daa jël def fi sama biir saak bu jox zone un million alors foofu laay commencé léegi-léegi jox leen ñu compter dépense yi commencé après ñu leve séance bi ku nekk dem sa préparation. waaw. dama ma jox zone ba pare après ñoom ñu jël parole ñu yeggale ak. dama waroon wut ay enveloppe mais garaawul ko entre ñun ah. aywa président. c'est pas benn ñaar ñett ñeent juróom. Merci beaucoup. Donc, zone, vous nous décidez finale. Merci beaucoup. Zone, vous nous décidez finale, parce que final aussi, le maire de, de Pékin Est, qui se trouve être le ministre Issa Diop, man dama dama proposer zone bi comme maak moom naturellement ñooy parrain te war na am moyen li may cotiser ak li muy cotiser ñu boole ko jox ko zone bi ñu organiser une belle à sa qualité de ministre war na ko mën a jël en charge proposition la rek su fekkee ne aussi da koy bett aussi ma def comme ni ñu defoon daaw ñu xool fu ñu trouver ma participation ñu defandoo ko ensemble mais man li ma doon gën a bëgg mooy Issakha Diop toute la zone final nawetaan riir pour Issakha Diop politique parfois seen moroom war nga ko mën a sagal pour man final zone bii tey Issa dañ ko war a sagal en tant que ministre daf ko un parrain stade bi communication bi tribune bi ñëpp xam ne étant ministre jël na final dara teewul mooy maire Pikine mais ministre bi mu doon ñu def ko parrain maa moom aussi ñu nekk ay ay ay parrain naturel mais moom mu nekk le parrain spécial